mbooleem téere yi jàngale jaar-jaari nit ku baax amul benn téere bu mas a jàngale ku tukkee ni bi tukkee dellu tukki bi mel ni ni sëñ Tuubaa demoon nga dellu amul ci benn téere bu jàng man zann na la wax annahu yakunu abada yurdihi billadi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni al xadim bi ma wana an mislihi kullu xaal ku njort ne mën ngaa génn tukki liggéeyal rasulullahi alayhi salaatu wasalaam liggéey bi ma ko liggéeyal man borom Tuuba ba mu gërëm ma ni ma gërëmee man borom Tuuba koo man di doon dindi sa njort loolee sànn ci àll ba ni ma ko liggéeyale ba mu gërëm ma góor kuy takk tuba dootu ko liggéeyal ci noonu ma tax tuhu mat xan la daa maa yomba tagg naa ko tagg woo xam ne ca yomba laa ko taggee maha uyubiya wa kafa zanba ci la ma yàlla faralale leen samay ayib fegal ma ay bakkaar madaxtuhu madhan la daa libari wali man xaadali maqaaba an kulli wali tagg naa ko ci Libreville tagg woo xam ni kawe na wépp wali maanaam fadd na wépp wali ma doon mënoo taggati rasulullah tagg wu mel noonu bu ko defee may yooyu nag moom lañ bëgg indi waxtaane ko ñu xam ne may yàlla coobareem la ciy doxee muy masiyatu li tax ma indi ko dañoo xam ne dañoo bokk réew mi di Sénégal te turux yi bari fi moo tax bi suñu mbokk yi dugg see léegi ma ne bala ma ñëw ci sëñ bi ak i mayam ndax may sëñ bi ba ma koy waxtaane sëñ Modou Moustapha rek lay wax ndax may sëñ Tuubaa sëñ Modou Moustapha doy na waaye li ma bëgg leeral mooy ak may yàlla coobareem la ciy doxal fi mu toll ñun Sénégal benn fiir la ñu jàppe benn fiir mooy bu ñu waxtaanee sëñ diw sàngam waxtaane may yi ko yàlla defal nit ki toog te xañ na bokkul foofa su waxee ni sëñ bi def na nangam wala yàlla defal na ko nangam wala yéege na ko ci martaba sàngam mën na ko weddi wedd gi xam nga fu mu koy teg bu fekkee ni sëñ bi def na loolu kon ñun suñu sëriñ nag te loolu du xam-xam maanaam may ngëneelul yàlla yàlla dani sama loxo la nekk wa anna al fadla la wax bi yaddillahi mën na ma jël exemple bu gàtt rek ci suñ mbokk yi xam nga léeg-léeg dañuy wax Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu daawul lekk ndawam ñu ni lu tax Maodo daawul lekk ndawal ñu ni ragal yàlla moo àggoon ci comme xamul ba xam xar mi mas naa ruur tooli jàmbur kon Maodo day xëy bàyyi ndawal ngir lan wuurul ndax xar mi naa ruur tooli jàmbur te bu ko lekkee mën na ci am bakkaar am ku ko dégg koo xam ne xaj na feneen la bokk loolu du ko gëm li tax mu ñàkk koo gëm du lu wedd ci xolam waaye dinaan léegi bu fekkee ne kooku ak ragal yàlla àgg na fii kon diw nag moom ak ragal yàlla ma bëgg ñu waxtaane loolu tuuti muy may yàlla masiyatu la ci doxe muy coobareem buñ noppee nag ba dikk ci sëñ bi waxtaane sëñ Modou Moustapha gis nga yonent yi 124 mille yonent la yàlla 124 mille yonent 124 mille yonent yooyu am na ci ñu ñuy tuddee al mursal mooy 313 ñoo ëpp doole ci yonent yi pour ma jéem a régler tuuti problème bu Sénégal fi mu toll donte du ma ko mën a waaye ma am lu ma ci leeral tuuti gis nga 313 yooyu kenn ku ci nekk am nga sa may bopp boo xam ni sa morom amu ko te lu tee ngay ab yonent bu leen jëlee sax dañuy bari mën nañoo jël rek. juróom ñi ci ëpp doole ñu leen di tudde ulul asmi muy juróomi yonent yi ëpp doole ci yonent yi muy Seyduna Muhammad Seyduna Nooh Seyduna Ibrahim Seyduna Isa ak Seyduna Musa ñoom ñii kenn ku ci nekk am nga sama samay bopp boo xam ni sama morom fekku na ci gis nga ñoom juróom ñii kenn rek moo ciy wax ak yàlla kenn moo ci wax yàlla directement sans Jibril sans intermédiaire Jibril kenn muy Sayyidina Moussa mel na moom rek ka ci wax ak yàlla Jibril te Ibrahima amu ko Noox amu Muhammad bu dul riñaan al bi mu ànd ak Jibril ba àgg fa nga xam ne fa la Jibril baaxoo ba àgg fi bi ko Seydina Muhammad ne Jibril nan wéel dana ko fii laa baaxoo yam yow yaay continuer comme noonu ko alxuraan jàngale su ma dana faddala fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa kon boobu moo àgg wax ak yàlla directement waaye lu dul loolu yonent bi buy wax ak yàlla Jibril lay ñëw indil ko message waaw léegi li ma bëgg laaj ndax Ibrahima daa defal yàlla lu ko Moussa defal wala musa da defal yalla lu ko do noox defal ba no di xaar jibril pour wax ak yalla te musa du xaar jibril pour wax ak yalla yeen yonent bi sax amna ñetti wer yo xamni amul benn message bu do ci yalla ñu ci moom ñetti weer yëxuwatu makke di ko reetaan naan am ji du ko yoni ba noppi fatte ba yeen yonent bi jaxle lol yeen ci kaw montagne sun borom do ko wacce sa wa do xaar والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلق وما الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى xamal ko ni sa borom yónniwu la fàtte keroog bi Jibril ne cëpp ci kanam njool mag lu ko yonent bi njëkk a wax mooy Jibril namoon naa mu ne ko maa raw waaye man bu may ñëw ci yow mbir rek lay ñëw du ma ñëw mukk ci yow ci ko mu léegi yonent bi ku ne xam na ne may googu ñu may Moussa ci daraja yonent bi alayhi salaatu salaam la ko amee Moussa li ñu ko may bu mën a wax ak yàlla directement ci daraja yonent bi alayhi salaatu salaam la ko amee ndax Sëñ Tuubaa moo ne mboolem yonent yëpp benn yonent rek la ci darajaam jóge ci yàlla directement ñëw ci moom muy Rasulullah yeneen yonent yëpp seen daraja mi ngi jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam darajatul muxtaari hibbul mursili biha irtilaawu darajaati rusul kon léeg-léeg yàlla tànn ak may may ko sax koo xam ni lim ko may ñu ko gën a ngi te mayu leen mën naa ci jël benn exemple fi mu toll li nit ñi gën a bëgg ci àdduna yàlla ki gën a bon la gën a bëgg ci àdduna yàlla ki gën a bon la ko may te daf koo ñaan rek xam nga ku gën a bon ci àdduna iblis Iblis a gën a bon ci àdduna yàlla ko wax yàlla moo ni Iblis dama ko rëbb daan ni ku ko tuddati sax nag ma ko rëbbule waaye pourtant li nit ñi gën a bëgg yàlla Iblis la ko may muy gudd fan ak wér Iblis bi ñuy bind aadama fi la ko fekk Iblis fa wax naan aadama ma wol ci moom ak ruux mi nga xamante si nii moo jiitu adduna tukki la fa Iblis di te ñun suñ sëriñ si kun ci bëgg lim lay njëkk ñaanal mooy yàlla nañ xam ne ak may masiyatu mais Sénégal booy waxtaan waxtaanee nit ay maqam ak ay darajaam dañ naan a amee mën a amee te diw amu ko fi a wax ak yàlla directement yàlla ne déet attention seet ku ma neex ma wax ak moom directement. Moussa moo ma neex ma wax ak moom directement wa kallama laahu Moussa taklima doone kon lu tax yàlla defal loolu Moussa Moussa li may mi rëy rëy na lu mu amul Ibrahima mooy xaritu yàlla ñu ni moom nu mu def ba mën a doon xaritu yàlla yàlla ni déet Ibrahima cherché wul pour doon sama xarit man yàlla maa cherché pour Ibrahima doon sama xarit wa taqaza laahu Ibrahima xalila man yàlla ma def Ibrahima pour mu doon sama xarit mayam googu li muy rëy rëy xiisa am na la mu amul xiisa mooy ruuxu laa sayiduna xiisa mooy li muy rëy muhammad alayhi salaatu salaam mooy xabiba laa xabib mooy soppe soppee gën a rëy xarit borom xam-xam bi ñuy xarit dañu ne muhammad bi ñuy misaal soppe ak xarit dañu xarit day am cause bu tax te soppe du am cause xarit xañ na nag naan sama soxna sama xarit la parce que dama toog wala nga ni ñan bala sama xarit la parce que dama bëgg wala nga ni Baye Diouf sama xarit la parce que daa am yitte ci man soppe nag amul loolu soppe mooy sa doomi bopp dina jur tey nga xam ne defalagu la dara te balaa kenn def dara ci moom jaar ci sa kaw doo ko jàll wala mooy soppe ma wax ñu ni soppé mo gëna mag màgg yeneen ci bi nag mooy soppe bi am bo ñëwee ci sahaba yi gis nga sahaba ko rasul yi 124 000 saxaaba boo demee ci ala ibn mujalis fi qisas al anbiya wax nañu yonent bi am na ko tay sahaba waye am na ci ñeenti saxaaba yoo xam ne ñoo ci gëna siiw ëpp ci doole ñu leen tudde al khulafa ar rasul dama bëgg barma ñu ci sëñ bi ma leral ak may ban xamni lu ñu wax ci sëñ bi rek man naa mën naa nekk damaa bëgg ñu xam ni sëñ diw am sàngam dara jotewut ak sëñ diw sàngam dara ndax yàlla ak may dafa wax ni ci sama loxo la nekk te lépp loo dégg ñu ne ci yàlla ne ci sama loxo la nekk rek loxo ñor ndax yàlla li nekk ci loxoom li muy tudd ni sama loxo la nekk bëri dañoo wax ni lépp nag lu ngeen gis ci àdduna yàlla ñu ko amee li ci kun fa yakun ba mu des ñett lépp lu ngeen gis yàlla ci kun fayakun la ko amale innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yàlla lu bëgg mu am dana naam su bëggoon defar baas bi du fi nekk di teg ay poto ñuy takk ñuy ranger les sièges yi nit ñi di toog danaan na baas beeg nit ñëpp taxaw baas beeg nit ñi taxaw mooy innama amruhu ida arada shay'an an yaqula kun fayakun waaye am na ñett yoo xam ne yàlla defaru ko ci kun fayakun ba ca njëkk ba ca njëkk mooy lawul mahfuus yàlla waxul ne na am mu am borom xam-xam ne dañoo wax ni juróom-ñaari wet la wet bu njëkk gi dafa jàkkaarloog asamaan su njëkk si wetum ñaareel gi jàkkaarloog asamaanus ñaareel si wetum ñetteel gi jàkkaarloog asamaanu ñetteel si wetum ñeenteel gi jàkkaarloog asamaanus juróomeel si wetul juróomeel gi ana jàkkaarloog asamaanus juróom ji wetul juróom-benneel gi jàkkaarloog asamaanus juróom-benn waaye nee nañ juróom-benn wet yi lu ci yàlla bind man na koo faraat bu ko neexee yamhu laahu maa yashaa wa yusabbitu wa indahu ummul kitaab lu ci yàlla bind mën na koo faraat bu ko neexee ba mu des wet gu mujj wet gu mujj gi jàkkaarlu asamaan si juróom-ñaari si foofa lu fa yàlla bind jeex na dootu ko dindi katabalaaw yi ngeen dégg sëñ Tuubaa di ko wax yépp sëñ Abdu Laat nee na ca juróom-ñaari alluwa ja jàkkaarlu asamaan si juróom-ñaari bi la ko sëñ Tuubaa indi uktub la wax uktub sëñ Tuubaa dañu uktub naaxilan min lawxi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin lu ngeen gis ma indi ko jox leen ko muy xasida yi ngeen téye ko ci àdduna di ko jàng bu leen sikki sàkka ni ca lawxul mahfuus laa ko recopier def ko ci ay këyit indi leen ko ngeen koy jàng moo tax àdduna sëñ Basiir daan wax ni xasaayit rek nga mën a téye mën a waat ci yàlla ni lii ma yor lawxul mahfuus la jóge lu dul alxuraan ak xasaayit ñi mu woo ko téye waat ni lii lawxul mahfuus la jóge te sëñ bi daa wax lu gën a yéeme nekk nee na léeg sax ma romb alliwa ji dem ba ca xalima gi ko war a bind wa min xalamihi la wax wa fii xolu fii lam tamit lay def ku not gaynde not segg ak dàq ñay mu daw du soo woo ki booy noppil téwéy yàlla gis la sëñ Basiru neen uktub yooyu ngeen di gis fu ngeen gis sëñ bi ne kataballaahu nee na loolu mu ko jëlee ci lawhul mahfuz indi ko ci ay këyit ñu di ko jàng moo tax sëñ Tuubaa nee na yàlla dani ma min li ma wax man yàlla muy alxuraan nga xam ne maa ko wax ak li yonent bi wax muy hadiis bu jàllee min mu nit waxati ci àdduna maag yonent bi sëmb na ko gënal li yaalama naasiru anna xatti ila ilahina ahabu xatti min lu mu amati rek ginnaaw a ak hadiis sëñ Tuubaa nee na yàlla nee ma maa yeneen ci bi sa mbind lu ko gën ma mahfuus googu yàlla da koo wax ci da koo defaral boppam ci loxol boppam maanaam néewul na am mu am bu ci topp mooy garabu Tuuba gis nga garabu Tuuba muy sajaratu Tuuba sajaratu sharabi garab googu digg àjjana la sax waaye dafa nekk garab bu universel parce que borom xam-xam yi nee nañu banqaas yi banqaas yi garab gi dem na ci juróom-ñetti asar àjjana yépp maanaam fu àjjana nekk rek yaa ngi mën ngaa jëfandiku ci meññanteefu garabu Touba parce que ci digg àjjana la sax garab googu moom la sëñ Touba dippe dëkk bii di Touba sëñ Touba nag nee na ñi nga xam ne dañoo sax ci liggéeyal ko bon faatoo ba dem àjjana duñ dëkk ci banlieue bi waaye digg àjjana la ñuy dëkk fa garab ga nekk daa wax ni. jannati fa lahu moo wasatal jannati wasatal jannati moy digg aljana fa garab ga sax ñamay may ta sax ci fa la ñu dekk garab googu it yalla neena wuxuma na garab gi am mu am mako jëmbatal man yalla ci sama loxol bopp tuba xarasaha allah bi yabdihi neena mako maa jëmbatal ci sama loxol bopp muy ñaar ñettel bi nga xamni ni la yalla defar defaral boppam moy doomu nit motax nit ko wara a fonk nit wërta jëfandikoo dara dara lu yàq jëmmi doomu adama mu yii ñu xewal léegi tooxaat volet yeeg suus yeeg yooyu yëpp nga xam ne nit bu ko dee def day déformer boppam ba boo ko gisee doo xel même ci moom jëmmi doomu adama di ko yàlla def nit ki da ko war a moytandiku ndax teral gi yàlla teral nit a tax gis nga yàlla dani wala xadd karam naa banni aadama dëgg-dëgg man yàlla dama fonk nit teral borom xam-xam dañuy wax ne teraanga jooju mu ngi tàmbalee ci yàlla bind la ci loxol bopp teraanga ji yàlla teral la mi ngi tàmbalee ci yàlla bind la ci loxol boppam moo tax keroog bi mu bindee nit ki njëkk bind muy aadama nit ki yàlla njëkk bind muy aadama bi ko yàlla bindee jox ndigal malaaka yi nii nañ ko sujootal malaaka yépp ni naram sujoot iblis lan nit ñi dañoo wax ni borom xam-xam dañoo wax ni bu fekkoon ni yàlla kuy waaru la keroog dañ naan waaru ndax waxante waxante iblis yaa maa manaaka an tasjudu li maa xalaqtu bi yadaya iblis yow xanaa loo dof dof ak loo ñàkk ñàkk taalibe lii nga xam ni man yàlla maa ko bind ci sama loxol bopp su ma nee la sujjóotal ko nga war koo sujjóotal loolu la yàlla bind ci loxoom muy nit yàlla nee nañu ba fekkoon nit la dañ naan dafa fan loxoom dañ naan yàlla cëram yépp loxoom la ci gën a fan lu mu nit ci la nekk rek loxo ñor la subhaanallasi bi yadihi mulk tudd naa sedd ki nga xam ne nguur ba nguur jeex ñu ne waaw mu ne ci loxoom la nekk yàlla wax boppam tabaaraka lazi ñu ne waaw mu ne bi yadihil mulk fee mu ne allahuma maalikal mulk tuutil mulka man tasha